li ci li ci yéene kaay ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf suba ci àjjuma ji ca la ñuy futti Ousmane Sonko waxuma ko Le Quotidien moo ko bindee noo ne ubbil yéenekaay bi xamal nañu ne njiital parti Pastef li honorable député Ousmane Sonko immunité parlementaire am bu moytuwul suba ca lay dañ su moytuwul it suba ci la koy jébbal juge bi ndax woote nañu appelé ñeer ci assemblée nationale suba ci àjjuma ji ngir càmbar liggéey bi nga xam ne commission ad bi def na ko jëm ci dindi mbalaanum kiirlay bu député Ousmane Sonko bu ñu ca yeggee juróomi orateur jël kàddu gi mel ne moom li mu bind moo di suba ci ajuma ji ci la assemblée nationale fas yéene jël Ousmane Sonko jébbal ko juge bi ngir mu lijjanti ak moom tuuma yi xale bu jigéen bi di Adji Sarr gàll ci yow ndoddam Sud Quotidien gis ne yoon wa ñu jaarale woon Khalifa Ababacar Sall Ousmane Sonko tege na ca yoon wa ne militantam yi ak sympathisant yi ñuy teg loxo bu nuppi jëm ci dindi immunité parlementaire am ci assemblée nationale noonee la ñu doxale woon ak Khalifa Sall atum 2017 ba ni ñu ko jëlee yóbbu ca kaso ba na ne mooy yot Ousmane Sonko ci jamono ji ñuy sànkee Sonko Cheikh Bara Dolly ak Abdoulaye nañu ci kawi kàddu laale gumiti yi li ko ndi yéenekaay bi nañu moo di grand sëriñ de Dakar dane dafa ay député yoo xam ne li ñuy waxtaane ci biir commission ad hoc bi dañuy génn di ko wax ci presse bi te loolee texte yu assemblée nationale yi da koy bañ député Cheikh Bara Mbacké Dolly tontu ko ne ko bañum sebet ndaxi weñ ni nit koo xam ne bokku nga ndékki ak Léopold Sédar Senghor añandoo ak Abdou Diouf reerandoo ak Abdoulaye Wade nit ku mel noo nan la mën a wëlbatikoo di mbaxar yàpp Macky Sall ndax tuut samu lay sexal ci kaw loolee léegi ko xamal nañu ne kii di Ousmane Sonko def na bu sew ca quartier ba mu dëkk waaye fu jaar rek nit ñi wan nañu ko seenug cofeel seenug jàppale ak ak seenuk solidarité lépp la ñu ko témoignel le témoigné nañu mbirum Ousmane Sonko bi tax nañu bari ci dëkk bi dañoo ànd akuk tiitange la si kay nañu moom kay sagara ngay xeeñ ci réew mi ne assemblée nationale mi ngi jëm ci levée immunité parlementaire bu Ousmane Sonko waa këram yi di waa parti Pastef ak waa FRAPP France Dégage ñoo ngi nas ak nësat ab doxum ñaxtu boo xam ne nee nañu doxum ñaxtu bi ca palais république fa la ko bëgg a teerale Le Quotidien dolli ñu ci ne aw ñoñam maanaam ay partisan ko ci am nañu ci demee ak ndànk nag ndax ministre intérieur di Antoine Félix Diome daas na fanaanal toog di leen xaar ñi bëgg a manifester ci réew mi ngir xeexal Ousmane Sonko yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal li leen Antoine Diome dencal Adji Sarr li mu denc tey la koy wax juge bi l'observateur nañu juge d'instruction bu huitième cabinet bi ñu dénk coowal mbës mi moo convoqué aji ngir déglu ko daje bi Adji Sarr amal démb ak ewokaam ngir waajal seenub defante ak Ousmane Sonko la tukkee ca gise ba am na lenn lu ñu ci journal bi baaxee ba wax ñu it waral juge di njëkk auditionné Adji Sarr laata Sonko ñeneen ñu am lante ak yoon ci wàll wi di Guy Marius Sagna Assane Diouf ak Clédor Sène l'observateur nee nañu ñu ngi ñu téye ba léegi ci division investigation criminelle ci bëccëgu tey jii ci leen war defeere lii quotidien boole leen ñoom ñett ñëpp di leen waxtaane mu di Guy Marius Sagna Assane Diouf ak Amadou Clédor Sène ñetti doomu aadama yu njuur toju seen bopp maanaam ay tête brûlée noonee la leen yéenekaay bi xëy tuddee ba wax ñuy lu bare ci seen histoire Vox Populi nañu li leen bàyyi ba léegi ci loxoy immigration journal bi nee nañu ay am na ndax certificat nationalité yi ñu doon wax naan dañu koy jël di ko jaayi étranger jaay nañu ca ba jaay ca benn waay boo xam ne nee nañu ci Daesh ca la bokk moom waa ji 2013 ba léegi mi ngi ci Ndakaaru ab pâtisserie la fiy seere am na identité Sénégal am na passeport Sénégal te yépp mu ngi ko amee ci foo certificat nationalité Sénégal yi mu am li am ci xët mu njëkk réew mi quotidien ma nga xewee ca mbuur pile yéenekaay bi ñaari xale yu góor ñoo dem ci hôtel Lagon 2 ca Mbour yéenekaay bi nañu ba ñu yeggee kenn ki dane moom doomi président de la république Macky Sall la ka ca des ne moom it doomi Idrissa Seck la journal bi nañu ca la ñu nekkee ca l'hôtel ba jël fa benn suite présidentielle tëdd fa ba seen xol sedd dem bàyyi leen ak bor lisi ko nañu facture bu million moom la ñu fa bàyyi te li ci doy waar nag journal bi nee nañu facture boobee waa présidence de ngir ñu fay facture ba